bés bu jëkk ci ayu bés ga jigéen ña jóg ca fajar dem ca bàmmeel ba ñu ngi yoroon cuuraay lu ñu defaroon bi ñu agsee ñu fekk ñu bareŋ doj wa uboon bàmmeel ba ñu dugg ca bàmmeel ba waaye fekkuñu fa néewu boroom bi yeesu noonu ba ñu nekkee ak seen jaaxle am na ñaar ñu leen feeñu sol yére yuy melax jigéen ñi am tiitaange ju mag daldi dëpp seen jë ci suuf waaye ñu ne leen lu tax ngeen di seet kiy dund ci biir néew yi nekkatu fi dekki na fàttaliku leen la mu leen waxoon ba mu nekkee galile neewoon na faaw ñu jébbal doomi nit ki bàkkaarkat yi ñu rey ko ci bant mu dekki ci ñetteelu fan ba noonu ñu daldi fàttaliku kàddu yeesu ya bàmmeel ba ñu dem nettali ji loolu lépp fukki ndaw yi ak benn ak ña ca des ñépp jigéen ñi ñoo doon maryaama magdala saan ak maryaama yaayu saak yeneen jigéen yi leen gunge woon itam nettali loolu ndaw ya waaye ñu teg wax jooju ay jeneer ba gëmuñu jigéen ñooñu waaye piyeer daldi jóg daw dem ca bàmmeel ba bi mu àggee mu sëgg yër gisul lu dul càngaay la noonu mu dëpp ñibbi jaaxle lool ci li xew ca bés boobu ñaar ci taalibe yi di dem ci dëkku emawus te mu sori yerusalem ci lu mat fukki kilomètre ñu waxtaane li xewoon lépp bi ñuy waxtaan aka a xalaat yéesu ci boppam dab leen ànd ak ñoom fekk seeni bët muuru ba mënu ko woon xàmmee yéesu ne leen lan ngeen di waxante nii ci yoon wi noonu ñu taxaw seen xol jeex kenn ci ñoom ki tudd kleopaas ne ko xanaa yow rekk yaa ñëw yerusalem te umple li fi xewoon bés yi yéesu ne lu fi xew ñu tontu ko ne mbirum yéesum nasaret ab yonent la woon bu doon def ay jëf yu mag di wax ay kàddu yu am doole ci kanamu nit ñi ak ca kanamu yàlla waaye sunuy sëriñ su mag ak sunuy njiit ñoo ko jëbal nguur gi ngir ñu àtte ko teg ko dee ba daaj ko ci bant nun nag danoo yaakaaroon ne mooy ki nare jot Israyel waaye bi loolu xewee ak léegi tele ñetteelu fan bi teewul nag am na ay jigéen yu bokk ci nun yu nu jaaxal dañoo fajaru ca bàmmeel ba waaye fekkuñu fa néewam ñu dellusi nettalinu ne ay malaaka feeñu nañu leen yëgal leen ne mi ngi dund ñenn ci suñu àndandoo yi dem nañu ca bàmmeel ba fekk lépp mel na ko jigéen ñi waxe woon waaye moom gisuñu ko noonu yeesu ne leen yéen daal yéen ñàkk xel te seen xool yeex a gëm li yonent yi yégle woon xanaa du almasi bi dafa waroon a daj boobu coono te dugg ci ndamam noonu mu tàmbali ca yonent yàlla musaa ba ci yonent yépp tekki leen li mbind mi wax lépp ci ay mbiram bi ñuy jub dëkk ba ñu jëmoon nag yéesu def ni kuy jubal yoonam waaye ñu téye ko ne ko toogal fii ci nun ndaxte jant baa ngi so te léegi mu guddi noonu mu dugg toog ca ñoom bi ñu tàmbalee di reer yéesu jël mburu ma gërëm yàlla ba noppi damm ko jox leen ko bi mu defee loolu lépp leer ci seeni bët ñu daldi ko xàmmee waaye yeesu ne mes gisatuñu ko noonu ku nekk naan sa moroom ndax sa xol seddul woon bi muy wax ak nun ci yoon wi te muy tekki mbind mi ñu daldi jóg ca saasa dellu yerusalem fekk fa fukki ndaw ya ak benn ak yeneeni taalibe ñooñu ne leen dëgg la borom bi dekki na te feeñu na simon ñaari taalibe ya ñoom it daldi leen nettali la xewoon ca yoon wa ak ni ñu xàmmee yeesu bi mu dammee mburu ma bi ñaari taalibe ya dee wax noonu yéesu taxaw moom ci boppam ci seen biir ne leen na jàmm wàcc ci yéen ñu daldi tiit foog ni dañoo gis njuuma waaye yéesu ne leen lu tax ngeen jaaxle ak lu tax ngeen di xel ñaar ci seen xol xool leen samay loxo ak samay tànk man mii la laal leen ma te xam njuuma amul yaram walla ay yax ni ngeen gisee ma am ko bi mu leen waxee loolu mu won leen ay loxoom ak ay tànkam waaye ba tey mënuñu woon a gëm ndax seen mbég ak jaaxle noonu yéesu laaj leen ne ndaxam ngeen fii lu ñu lekk ñu jox ko dogu jën wu ñu lakk mu jël ko lekk ci seen kanam noonu mu ne leen bi ma nekkee ak yéen waxoon naa leen baat yi li ñu bind lépp ci samay mbir ci yoonu musa ak ci téere yonent yi ak ci sabuur dafa war a am noonu mu ubbi seen xel ngir ñu xam li mbind mi di wax mu ne leen faaw almasi bi sonn mu dee te dekki ca ñetteelu fan ba ni ñu ko binde te it ñu yégle xeet yépp ci turam dale ko ci yerusalem ne war nañoo tuub seeni bàkkaar yàlla baal leen yéenay samay seede te man dinaa leen yónnee li sama baay dige yénn nag toog leen ci dëkk bi ba ñu sol leen doole ji jóge ci kaw ginnaaw loolu yeesu yóbbu leen ca wetu betani foofa mu yëkkati ay loxoom barkeel leen bi mu leen dee barkeel mu tàggoo ak ñoom yàlla yéege ko asamaan taalibe ya màggal ko daldi dellu yerusalem fees ak mbég foofa daawuñu jóg ca kër yàlla ga di gërëm yàlla